asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi kontaan si yéen bu baax a baax di la defal jàmm di kontaan bu baax a baax képp koo ne aussi yaa ngi béggee si Walko TV di dem fi nga xamante ne aussi mooy Kaolack ndangaan sama am di jàmm di leen nuyu di nuyu aussi waa Saint-Louis di Sénégal fàttewuma waa Gossas Ndiaye ki ni ñoom Ibrahima Kandji moo jimo euh, Daouda tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne aussi mooy Fass Bintedieng ci ki nga xamante ne ndaanaan kullu fanlin moo xew la ñu koy wax euh, LP tey nag mu li nga xamante ne moom mooy ngénte ñu ñëw ba fii xool naka la am di jàmm di ko euh, seetsee na koy jàppale ci nga xamante ne mooy xewam bi le gars yi kon nag bu leen dara ump ci li naka yiite yaa ngi si jàmm alhamdulilah ah ma ñëw nag ci LP fekk sanche sanche burafet sañce bu rafet kaar macha allah maam lan mooy sa diggante ak nga xamante ne mooy borom xew LP alhamdulilahi rabi alamin alhamdulilahi rabi alamin LP mooy Lamine Ndoye yaayam tudd Maymuna Jàllo ah sama sët parce que maamam muy ndey xalilu soxo mooy sunu taawu kër waaw pap euh, xalilu Sissoko El Hadj xalilu Sissoko nekk papaam Binta Sow nekk yaayam mais mën a sama doom la doom bu neex a dëkkal waaw fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jóge waaw yàlla na wéttalu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak karim waaw lan mën a wax sa diggante ak nga xamante ne moom LP fan la la teg ak yooyu noonu. eh moom euh, moom sama sët la maay féetewoo bañ naa ko mooy sama chéri moom. mooy sa chéri sama chéri kooku moom. waaw chéri bu baax xale bu yaru. di ko ñaanal na fu mu nekk jàmm dong la fay am incha allah bu neexee borom bi subhaana. nga xamante ne moom la tuddee doom ji kooku mooy kan. may mën a jàllo yaayam waaw day faatu xale li si soxo mooy yaayam waaw kontaan lool. kontan lol ci tour bi tay ji tour bi dama joy ba son ndaysan dafa daw yaram yaayam fekkewul dara. bu mi genn fi borom bi diko jël 34 ans la moy mu nek xalé bu ndaw. waaw maam booy bul jooy jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. ko mu nek jam rek la fay am inshallah di len dund ba mu delu ci ci domam bi diko may muy sey fekke lepp tatal yalla jubale ko jabaram sunu borom bi mun na lepp diko ñaanal jam rek la fay am jam rek la. ah bo sété xana di sante yalla rek julli si bi salallaahu taala alayhi wa sallam waa Petit Lamine mom dafa nek dom si ñun parce que bo sété ñaari cër la am si mom mu yaayam mi di abi ñoo fawandoo depuis enfance ba légui kon yaay la fi en même temps tamit altes ñom ñaar depuis nek xalé ñom ñoo and ak Petit Lamine vraiment di Petit Lamine di xalé bu baax bo xam ne bu ñuy wax baaxam duñ fi joggé xalé bu am yar toujours légui rek la joggé kër ga wax yar ak teggin nag lañ xam si moom kenn lu mënu ko waxal lu dul yar ak teggin xale bu baax fonk ay yaayam fonk ay kiyam bu ma ñëwee si kër gi dafay mel ni man maa ko ju vraiment xale bu baax la ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko ba bébé bi tamit yàlla defal ko gudd fan mu juddu te am ndey ak dund kan lañ ko tuddee ci euh, kii moom kan la LP tuddee ki nga xamante ne mooy bébé bi waaw ki nga xam ne ma yaayam Maymuna waaw vraiment yàlla dafa def mu teel a génn àdduna mais yaayam tamit nit ku baax la peut te la melee ni du ñu jaaxal ndax yaayam ak magu yaayam bi macha allah ku leen xam mbaax rek lañ xam si ñoom. tey Petit Lamine am ngénte moom donte nekkulu fi nga bàyyi lépp li nga doon def ñëw euh, teewal ko lan nga mën a wax ci loolu noonu. ah moom ma ko jaral rek parce que tey bu amoon nu mu taxawee tamit du ñu jaral loolu ñëw naa si bés bi en tant que yaay ñëw tamit si en tant que euh, xaritu ki nga xam ne mooy sama doom Altesse voilà ñaari cër daal laa am ci kër gi. parce que ñoo dundandoo depuis xale ba léegi kon ñun léegi ay famille lañu waaw famille daal moo ma ñor moo ñu yëkkati ñun ñëpp vraiment.

je crois que ne euh, am na loo xamante ne si suñu si suñu cër lay delluwaat waaw ba tax na waaw dañ koy def ak xol bu sedd guy parce que fa dëgg neex yàlla euh, dara umpuñu tamit si moom dara umpuñu ci moom ci lépp lu muy dugg bon euh, xam na cër bu muñu si jox am na cër boo xamante ne jox nañu ko ci ten en général ñëpp képp koo xamante ne maanaam ci côté ba ci côté monde business am tamit Euh, dinañu faral tamit di si jokkook ñi nga xamante ne maanaam ñoom maanaam euh, waaw ñii daay kilifaam di si jokkook ñun ba yàlla def li muy def daal waaw lu ñu def leneen loolu di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal. macha allah jërëjëf merci beaucoup. di ko ñaanal surtout si fi mu ne. waaw li mu fay yóotu li mu fay sàkku moo ko xam yàlla na ko yàlla defal te mu doon njiglaayam. ñu koy wax LP. Mm-hmm. LP la. fii la yodoo ci kër gi yaayam dafa teel a gaañu nag magu yaayam moo ko yar te yàqu ci dara lu mu ko téye même bu yaayam doon dund du ko téye lu ëpp loolu dafa leen téye téye bu rafet moo ko rakkam ñoo fi nekk ku ñuy wax bàcc waaw xale yi yarut xale yi respecté nit xale yi jox cër mag mag cër jox seen tante yi cër ñoo seen tante yi ñoo fi dëkk ak seen nijaay beneen dëkk ci kër gi que fii nañ màggee daal ba seen yaay di gaañu boobu ay xale nañu ñu yar leen fii si kër gi ñuy ay xale yu baax ay xale yu may mag cër wax dëgg yàlla parce que Lamine amul benn problème ku la mosul am fii benn problème mosu fee mosu ko fee mosu ko fee am may magam yi cër may doom kii am nijaayam yi cër may tantam yi cër tabaarkalla du xale bu baax nag xal bu mën a respecté nit teg LP nekku fi temps yi mu nekk foo xamante ne mu ngi biti réew tey mu am ngénte euh, nekk koo xamante ne ku sori la woon ku sori la tamit yow yaw nag nga mën a wax ci loolu. ku lan ku sori ci yow koo xamante daal sa doom la nga doomoo ko ma te tey nag muy ngénte te nekku fii nan nga mën a jàngate loolu. xanaa xol bu tooy rek ndax li mu fekke wul ngénte li waaye yàlla yàlla moo ko dogal ndax dafa tukki mu tukki jabar ji aussi ci ginnaawam xam nga yàlla moom mooy dogal yàlla waxoon ne nii lay nii lay demee. waaw yàlla baax na ndax fii ma dem xañ na yàllaa ko tudd waaye bu soñoon mu fekkee ngénte jabar ji au moins mu gis sax doom ji bu dee bu dee benn fan waaye yàlla moom kenn mën la xëccoog moom di ko nam rek ci xew bi ñu soñoon nag mu teew xew bi waaye nii la ko yàlla dogale maa ngi lay fay bu baax yaa ngi si jàmm bu baax xam ne nag euh, xam naa ne kenn du laam-laamee que ne yow yow la ñuy ngénte macha allah tey ñu gis que ne euh, LPM mooy sa jëkkër mu muy ngénte instant bi ni te moom nekku fii mu ngi nekk fi nga xamante ne mooy extérieur nga mën a wax ci li nga xamante ne mooy sa ngénte li tey sa jëkkër nekku fi ah yëpp ñu ngi si jàpp bu baax donc am na nekku fi tey mais am na ñu ko fi teewal te dara manqué wul yow euh, pense gënoon li la loolu mooy euh, ñu lay ngéntee nga sañse bu mu bëri doole comme ni nga sañsee nii moom LPM bi koy gis yaakaar moom moo gën a neex loolu la moom bu ma sañoon mu nekk fii mais noonu la ko yàlla bëggee donc dañ koy ñaanal rek fi mu nekk gën si moom incha allah yàlla defal ko fa jàmm. mais instant bi nii je pense que ne euh, doom bi mën nga wax carrément kan la ñuy tuddee doom ji moom euh, kan la LP tuddee. waaw doom bi muy mën a jàlloo lañ ko tuddee muy yaayam. waaw mooy kan. muy yaayu yaayam la yaayu yaayu sa jëkkër. Lamine waaw moom lañ ko tuddee moom nag dafa génn àddina waaw. di ñaan yàlla ko yàlla xare. amiin amiin amiin. macha allah kontaan nañ bu baax dégg nga. ok jërëjëf. merci beaucoup.